ne ko saytu ñu li nga xam ne bu moom itam amal euh, taxawaay bu am solo ci li nga xam ne rek moom moo di euh, màggalu ko Touba gi euh, ci li nga xam ne rek moom la yëkkati xam naa bu ñu ko mënee am rek mu nekk jàngat bu am solo waaw bu ñu ko mënee am rek voilà bu ñu ko mënee am ñu ànd ak euh, Cheikh Abdou Bali Mbacké euh, moom itam euh, nekk kenn ci comité bi waaye tamit kàddu yam solo yi nga xam ne ñu ngi koy yëkkati ci wàllu ko màggal ba bu leen wooyee ak lu mën di xew ak jafe-jafe bu mën di am dañuy dikk si ko kon nag ñooñu dañ leen di sant di leen di leen gërëm di leen ñaanal yàlla lépp loo xam ne ñaan nañ ko fi rek muy loo xam ne bi suñu borom da koy nangu kenn xamul nu mu toll te nga xamewut kenn ñëpp rek nekk ay julit ñëpp nekk ay ay soppe loolu jàpp naa ne dana jur jàmm ci réew mi ndax réew mi noonu la mel réew mi aussi wërta mel neneen lu dul noonu kon esprit bi nga xam ne jël nañ ko Touba jaxasoo gi fi jaxasoo ci ci yaatalante gi ci jàmmoo gi fi nekk loolu dañuy ñaan yàlla mu wéy ñun ñëpp buñ fi jógee loolu continuer di tooyal suñu xol yi ba kenn ku ne yéene sa morom jàmm kenn ku ne jox jox cër sa morom ba nga xam ne ñoo xam ne ñoo bokk réew mi mënuñ ko xajali ko kon lenn rek moo nu war mooy an defar réew mi jërëjëf daax Ahmed si jiite ko ñu ngi koy nuyu baax eh, loolu lépp bu amee eh, dañ laa war a fàttali ne kon foo toll rek am na ñu fa tolloon ndax yonente yi ñoo gën a tar ñëpp natt yonente yàlla Ibrahima bëggoon ndox mënu ko am Hajara ba sam-sam li ko indi ndox yooyu mooy nekkoon ci xur woo xam ne tund woo xam ne mënu woon fexe ba am ndox muy jaabante am liir bu ndaw waaye gis na la ko yàlla faye suñu bés bu xaaj wax na ko ci biir aaya rabbana inni askan min durriyati waadi xayri dara inda baytik muharram gis na tey boobaag léegi junni at suñu borom subhanahu wa taala doo nangu màkk tey mu mel nii sëriñ Touba mi tamit fii ba muy sanc Touba gii ndan fay fay lool bukki yeeg till yeeg tene yeeg seeg yëpp nekk fi sëñ Saliou Mbacke am na sëñ Abdou Khadre sëñ Abdou sax wax na ko ci benn waxtaan daana wax ne fii tolloon nañ ci jafe-jafe yoo xam ma masaan euh, sibati sibet yi sibet yi jigéen ñi daan def moom lañ daan naan di ko njëkkantee wala di ko wëgg suñu kii boobu sax daaw ñu ko jóg jur gi sax waaye nit ñi dañ ko doon njëkkante ndax jafe-jafe kon bu ñu demee nag ba xéewal yi gis ay jafe-jafe yu ndaw ndawaan loolu képp ko xam da war a delluwaat suñu borom subhanahu muñ bañ a ndax wax naa la ko léegi nee naa Sëñ Tuubaa ci kunkaati man gi muy jàngal xale yi sax nga xam ne kenn ku ne war ngaa jël bay doo euh, xame ci da wax ne na nga dëgër te bul bari looy looy jàmbat ba nit ñi jàpp ne da ngaa fees dell ak xéewal laa tuksiru euh, shakwa fakkun muta fakkun muta jallidan xataa yow xataa yow am na ko a amoon loolu suñ Tuubaa waxoon donc kon murid yi na wala julli ñi dimension général ndax tey ko mën a bu ñu bëgg moo xam wàllu politique la moo xam wàllu euh, koom moo xam wàllu liggéey rawat na ñuy jël gaal loo ci sax di dem ñun ñëpp bu ñeen fàttaliwaatee suñ Tuubaa fi mu tolloon dana tax ñoom ñu muñ dana tax ñu des xam ne yàlla des fois mooy natt ab jullit ci jafe-jafe ak lu mënti doon rek dana ko natt sa diggante soxna dana nattu sa diggante alal dana nattu sa sa lu bare bare ba ci tool sax dana la ci natt ndox dana la ci natt lépp yàlla dana la ci natt loolu nag bu amee yàlla la moo xam ne bashiri saabiriina yàlla maa ngi bëggal nag ñi muñ kon sëñ Bass Abdou Khadre loolu la delluwaat indiwaat ko ci waxtaan mu nekk lu am solo ñun AIS en tant ñoo xam ne dañuy sàmm euh, waxi mag ñi dañuy sàmm ndonoy mag ñi dañuy sàmm la ko waxal rawat na bi nga ko waxee ci contexte boo xam ne ñëpp xam nañ ne jafe-jafe yi mi ngi bari nit ñaa koy wax nit ñaa ngi koy kii euh, politique bi dugg na ci famille yi mi ngi xiféewal mi ngi yàq mi ngi ñàkk bokk ay gis-gis loolu lépp nag bu amaate bu ñu ko delluwaat suñu borom subhanahu wa delluwaat ko njàng na suñu Tuubaa jàpp nañ lépp dana saafaro incha allah